vidéo bii may def nag vidéo bii may def vidéo bii may def nag euh, ñi nga xam ne dañoo luubal alalu réew mi ñoo moom vidéo bii ak ñi nga xam ne dañoo war a fay impo bañ a fay impo ak ñi war a fay impo bëgguñu leen ko baal baaluñu leen ko ñu mer ñoo ñoo moom vidéo bi euh, su ngeen gisee wala ngeen dégg saa su nekk may wax ne euh, ñi luubal alalu réew mi dañu ko war a delloo si ak timit war nañoo wut ay jumtukaay ay matukaay ak taxawaay boo xam ne corps de contrôle yi danañu def seen liggéey ba nga xam ne kenn dootu mën a luubal alalu réew mi su ngeen déggee tamit may wax naan impôt kenn waru koo baal kenn te ñëpp dañu ko war a fay dama xam lenn ñenn ci askan wi jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund image bii ngeen di gis nii euh, lii ay sancaan la ñii dañoo bokk ci askan wi su ngeen gisee quarante milliards yi nga xam ne moom la Macky bëggoon a baal journaliste yi ànduma ci lu mel nii moo tax ndax quarante milliards yi Euh, mën naa defar hôpital niveau trois wala niveau quatre boo xam ne bu mucc ayib lay doon waaye quarante milliards yi tamit mën naa defar gën gaa gàtt vingt postes de santé ndax ñii ngeen gis nii sancaan yi ngeen gis yii rek laa wan waaye presque ci senegal gi fu si baree baree bari bu ñu feebaree du ñu dem ci bërëbu fajukaay yi am na ñoo xam ne du ñu gis bërëbu bërëbu fajukaay yi pour man faa fajoo am na ñoo xam ne danañu gis bërëbu fajukaay waaye duñ fa dem ndax amuñu bu ñu demee lu ñu fayee am na ñoo xam ne bu ñu leen bindalee ordonnance du ñu dem sa pharmacie ba ndax mënuñu koo jënd am na ñoo xam ne paracétamol sax mënuñu ko jënd ngir sonn ngir ay jafe-jafe. wante nag ma jàpp ne bala nga nay naam ne man mësuma ànd ci baalem impo ab Wade da ko doon def Macky Sall da ko doon def te du dëgg du yoon euh, ndax nag man ngaa toog dakaar di gundaandaat waaye ñii nga xam ne ñoo nekk ci àll bi nii ñoom ñoo ngi ci jafe-jafe bu nu añee mën nañoo tibb reer ci añ bi wala am na ñu bari ñoo xam ne bu ñu xëyee dañuy ga gàddu seenub sewo ànd ak seeni doom di wër xew yi ngénte yi wala dëj yi bu ñu demee añ ba pare di bujj sewo yi yóbbul seen waa kër man see reer man see ndékkiwaat loolu lépp am na kon moo tax lépp loo xam ne alalu askan wi la dañu ko war a yaxanal dañu ko war a sàmm euh, ba ñëpp ba ñëpp jot si ndax am na loo xam ne aussi am na loo xam ne ñàkk euh, ñàkk yërmande la am na loo xam ne ñàkk yërmande la ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk ci sancaan yi ak ñi dëkk ci monde rural bi ak ñenn ñi ñu dëkk ci ville yi ñooñu dañoo am sañ-sañ faju faju bu baax seen doom yi jàng tey ñii ngeen ñii lii ngeen di gis nii ñi dëkk fii waxuma la sax école mais xalaatuñu ko sax ndax seeni parents yu bari amuñu moyen pour jël seen doom yi pour seen doom yi dem jàngi yi léegi nag loolu la fi ñoom Jomaay ak Ousmane Sonko bëgg a ci réew mi dañoo bëgg ñëpp di dund dund gu bakkane mais ñii di dund dund gu bakkane ñii di dund safaan xam ngeen ne loolu tegewul fenn baal ay patron de presse impôt baal leen quarante milliards yoo xam ne sénégalais yee ko moom tey quarante milliards yooyu ñii ngeen gis may filmer nii seen doom yi mënuñoo jàngi bu ñu feebaree mënuñoo fajo mënuñoo ndékki añ reer mais ñooñu si lañ bokk ñii xam ngeen ne. ñii xam ngeen ne bu dee dimbalee war naa am ñii lañu ñu war a euh, la ñu war a dimbale te nag Maimouna Ndour Faye yéen Ousmane Sonko fayloowu leen impo askanu Sénégal cinquante quatre pour cent ci askan bi ñoo bëgg ñëpp di fay impo Ousmane Sonko bëggul presse bi ragal ko waaye dafa bëgg ñëpp di fay impôt te loolu la loolu la ko askanu senegal sant te euh, journaliste yi wala ñeneen bu ngeen di wax naan Ousmane Sonko euh, moo wax ñu fay impôt moo ñu defal redressement fiscal loolu su ngeen ko waxee sax yéen yéen a ngi liggéeyal Ousmane Sonko ndax loolu la ko askan wi sant saa jàppale ne saa su ngeen waxee ne Ousmane Sonko moo ñu andi redressement fiscal. jàppale ne yokkal yokkal ngeen ko ay point ndax sénégalais bu dégg may Maimouna Ndour fay ne Ousmane Sonko moo ñu indil impôt yeeg yii nii sénégalais yi dañuy tàcc sénégalais dañuy kontaan ndax ñi ko fal looloo tax ñu fal leen. loolu la may loolu la sénégalais yi bëgg di dégg sénégalais liñ bëgg a dégg mooy ab entreprise taxaw fee naan indil nañ ma 4 milliards yu ma war a fay impôt. li askan wi bëgg a dégg mooy may Maimouna Ndour fay taxaw ne andil nañ ma impôt nangam pour ma war a ko fay loolu la Sénégalais yi kontaan ndax Sénégalais yi loolu lañ bëgg Sénégalais yi tamit dañoo bëgg ñu ne diw sàngam dénkoon nañu ko alalu réew mi euh, yóbbu nañ ko fa mbax na doonee benn goqi na ko loolu dafa bokk ci li senegal yi bëgg a dégg kon euh, réew mi il faut ñu xoolaat réew mi il faut ñu am yërmande ci réew mi bul nekk ci sa kilim bu sedd. sa oto bu sedd toog say bureau euh, jàpp ne amul ñuy amee jafe-jafe xam ngeen sax ne am na ñuy jafe-jafe xam ngeen am na nit ñu amee jafe ndax sénégalais yu bari dañoo sonn lii rek laa leen wan mais fu ne laa leen ko mënoon a wane ku ne leen ko mën a wan tamit ci biir réew mi sénégalais yi dañoo sonn sénégalais dañoo nekk si jafe-jafe kon ñi war a fay impôt na ñuy fay impôt gouvernement bi gën a taxaw ci ñi nga xam ne ñooy luubal alalu réew mi tey dama gis journalu Bougane Gueye Dany bi di La Tribune La Tribune posé benn question ñi nga xam ne ñoo luubal alalu réew mi di politicien kañ lañ koy goqi kañ la ñuy nangu alalu politiciens yi sàcc alalu réew mi loolu la journalu Bougane bii bind tey waaye laaj bu am solo la waaye am na beneen laaj bu mu ci waroon na toftal kañ kañ la patron de presse yi war a fay impo waroon na ko see yokku waroon na see yokk tamit ne kañ la homme d'affaires yi di war di gën a taxaw ci fayum impo loolu tamit waroon na ko see yokk ndax réewu Afrique yépp lenn leen lii li moo tax ñu sous-développé mooy ñàkk fay impo corruption luubal alalu réew mi du leneen Sénégal gii sancaan yi ngeen gis ñuy dundi jafe-jafe wallaahi bu ñépp doon fay impo luubal jeex ci réew mi ñu teg alalu askan wi ci yoon léegi tey sénégalais yépp génn ciy jafe-jafe léegi tey sénégalais yépp génn ciy jafe-jafe xam ngeen ne quarante milliards ku ko bëgg a baal euh, ku ko bëgg a baale quarante milliards yoo xam ne vingt poste de santé mënoon nga ko see def am na dëkk yoo xam ne jegewuñu sax bay am euh, poste de santé wala sax case de santé nga ne da ngay baale quarante milliards te loolu la Sénégal yi xam nguurug Ablaye Wade nguurug Macky Sall liñ baale kenn xamul ñaata centaine de milliards la tey Ousmane Sonko ak Jomaay kenn santu leen ñu baale un franc ndax goloy bay baabu di dundee dafa war a jeex ñun dañoo dëkk ay nit ci ay sancaan xam jafe-jafe yi nga xam ne ñoom moom la ñuy dund am si ñoo xam ne. xam nga am na si ñoo xam ne tabaski ngeen seeni doom solul nañu seeni soxna sañse nañu waaye jamono jooju am na ñu dëkk ci sancaan yi ñoo xam ne lañu tabaskee la yàlla xam doy na mais ñooñu ci réew mi lañ bokk ñooñu ci alalu réew mi lañ bokk ñooñu bu ñuy leb xaalis ci turu réew mi ñoom dañ siy bokkaale kon bu ñu lebee xaalis ci tuluwaa réew mi pétrole bi génn ci ñëpp ci réew mi géej gi ñëpp bokk ko or bi ñëpp bokk ko euh, ressource naturelles yi ñëpp bokk ko alal jooju dañ ko war a jëfandikoo anam boo xam ne sénégalais bi nekk ba fongale mi sax daf ciy gis boppam li war a jeex mooy ñu dénk alalu réew mi nga di ko ngardaajoo di ko luubal loolu réewu tubaab yi amuñu ci sentiment amuñu ci masla kon bu leen wax naan usmaan Sonko wala jomaa yi ñoo ne nañuy fay impôt déedéet sénégalais yi cinquante quatre cent ci sénégalais yi ñoo bëgg luubal jeex ci réew mi ñoo bëgg corruption jeex ci réew mi ñoo bëgg ñëpp di fay impôt ci réew mi ñoo bëgg parparloo jeex ci réew mi ñoo bëgg kumma mu am ndey ak kumma mu amul ndey jeex ci réew mi te oppose fi mu ne nii yi ñenn ci journalistes yi ñoo jóg mel ni ay opposants mais amagu leen journaliste yi ak politiciens yi ba léegi amaguñu stratégie ndax tant que yéen a ngi wax naan réew mi ñoom Ousmane Sonko réewum impôt lañ ko bëgg a def yéen a ngi may Ousmane Sonko ay point ndax Sénégal yi loolu lañ bëgg a dégg Sénégal yu bari buñ déggee ñu ne diw goqi na diw fay na impôt Sénégal yi dañuy jubilé dañuy jubilé kon ñu leen di sant di leen di gërëm. di leen di xamal naan leen senegal yi dañoo sonn sénégalais fu man di nekk ci xaalisu réew mi la bokk tegewut fenn nit war fay impôt fayu ko tegewut fenn ñu dénk lay milliards pour liggéey loolu la si ci biir askan bi nga luubal xaalis boobu ndax réew mi dafa am ñu ñàkk yërmande feeñ na ci Covid bi Covid bi nga xam ne ñu bari ñoo ngi woon tumuranke ñu bari tiit. Sénégal yi dajale ab xaalis am ñoo xam ne ñàkk nañu yërmande ba di ca jël di ca luubal kon vidéo bii su ngeen gisee ma def ko mooy ñi bañ a fay impo ak ñi bëgg ku leen baal impo ak ñu luubal alalu réew mi xamal leen ne leen ñenn ci askan wi dañoo sonn sancaan yii nag war nañu leen a gestu war nañu leen a gestu bu baax a baax a baax baax kon mbokk ñu leen sant di leen di gërëm